ñi nga xam ne ñoo la doon seqal ñëpp amal nañ ab euh, remercier jëmal ci moom félicité ko ci ndam li ko yàlla jox waaye it kii di Amadou Ba di candidat bu benn bokk yaakaar bi ñëpp doon déglu ba xam lan la war a àddu moom mujj na nangu ndokkeel félicité ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye accepté defetam naka nga déggee ay kàddoom. Amadou ko daa mënut a inventé waa Sénégal bu bees wa nga la koy wax fii démb ma ne la li ñu joxoon. ñun li ñu joxoon sañ-sañu ñu annoncé élection ñu annoncé ay résultats l'an 2000 première alternance bi Ablaye Wade di Daniel Abdou Diouf jox ñu sañ-sañ ci ñu annoncé ay résultats yi Daniel Ablaye Wade. La tañu koy annoncer bi ko Macky Sall di remplacer mo joxat Sénégal yi sañ-sañ bu ñu annoncé résultats yi daaneel Amadou Ba Ben, beneen bi ci dess dañu bokul sax. Euh, Baye Moussa Amadou Ba du président c'est-à-dire Amadou Ba dañu ko joxone pouvoir bu mu amoon man boo gisee li tax man leen Amadou follow c'est-à-dire ma ñime won coalition bi dama doon fàttali Sénégalais yi ni leen. affaire bi du Amadou du président. Mhm. Macky Sall ñëwul ni candidat pour remplacer boppam. Macky Sall dafa remplacer Abdoulaye Wade mu nekkoon candidat nekk président de la République. Mhm. Abdoulaye Wade remplacer Abdou Diouf mi nekkoon candidat nekkoon en même temps président de la République. président Macky Sall def ñaari mandat djéxal. mais suñu yónnee ko ci coalition bobu, mhm. ñun Sénégal bu bees lañu bëgg kenn duñu ñu

loolu loolu moom pexe amu ci donc euh, faut mu accepter aussi magayou démocratie mais euh, taxaw set li ci am Baye Moussa mhm. euh dafa bëri ño xamni tay dañu saluer rafetlu magayou démocratie ak intelligence su sénégalais yi seen parce que Sénégalais buñu ñu won woon amuñu woon détermination kon démocratie bi ñuy bàkk tey kenn du ko bak parce que commencé woon nañu ko fowé mhm. légui ñoo ñëpp nag nga xamné tay ñu ngi remercier Diomaye tey rafetlu màggaayu démocratie yi. Mhm. pourtant ñom dañu dañu participer won ci li néewal doole démocratie. Mhm. tànn ñu tànn lu wuñu wutuñu ku ñu tànnal du moyu wane ginnaaw melni dañu allergie coalition bi nga xamni li ci nek ci ay ponk lekk ngand ken xamul mu toll ñepp jox ko bop ñepp jox ko beut peuple bu Sénégal jox ko bop taxaw temm ci indi changement mais bo ci contribuer wul ba Sénégal bi def changement même bu fekkee da nga ñeu félicité Diomaye wala nga nangu ñu démocratie bu Sénégal dafa mag kenn du jox gëdd say wax parce que bi démocratie tawaté dafa amone ay ndaw yu doon fighting ci mbedd mi am ci ñom ñu ñu ray Mm-hmm. am ci ñoom ñu ñu mm-hmm. am ci ñoom ñu dañ ay handicapé am ci ñoom ñoo xam dañ leen gaañ. léegi ndaw yooyu Baye Moussa ñooñu ñoo xeex ba war rafet màggaayu démocratie mais pas mag yi nga xam ni falu taxawal coalition rek moo leen intéressé ak jalousie seen mm-hmm. solo. mais prudence aussi am solo ki bañ démb bu nango tay pexé mu djubul on n'est pas là pour di faywanté ak di wax ay wax yo xamante bi euh xeyna du doon kaddu yo xam kaddu yu dal bien boo kenn ku ne li nga def mom nga war def. nit faloo nek nek sa njiitu rew force mu nek sa njiitu rew di nga ko féliciter. di nga mhm. rafetlu magaayu démocratie mais leçon le pour ñoom. Mhm. leçon le bu len di wani sal boulot liggéey bu setul dox bu leerul du la mus a jox ndam parce que peuple Sénégal dañu yeewu tey te dañu am détermination Baye Moussa boo xoolee Sénégal yi ni ñu voté Dubaï Arabie Saoudite Turquie France Allemagne Italie Espagne sans compter Sénégal fii Sénégal xale yi ni voter..! voté détermination bi ñu am moo lay ne peuple bu Sénégal ñoo décidé pour indi changement. Mhm. ñoom ñoo bëgg xoola dagg bopp jaan ji jaan ji tudd système. système peuple Sénégal ñoo dagg bopp bi léegi nag xam nga jaan bu deewee nag boo daggee bopp bi du tax mu dee mun naa yëngatu suba ba ngoon. Hmm. benn benn benn dóorkat yi ak diilkat yépp dañuy des di raj di di patam patam yi soit nëbb lu ñu am <coughs> soit taxawal léegi ay clan yu commencé di critiquer di sikkal di samp ay question di indi ay exigence lii mu war na ko nii la war a def nii la war a def dara ñorul ba ñu koy màcc incha allah président Diomaye dana doxal. incha allah amul li mu def dong la ma def muy félicité Diomaye parce que pexe amul. ah d' accord ba tey Hadj Mansour balaa ñuy dem ci.